daani sama waay la jàmm a jaara busuk wala man se bi jaara asalaamaaleykum maa ngi leen di bëggee di leen jox seen wàccuwaay nii ñi safoo ak seetaan seen chaîne Click Dakar 221 dellu si waat naa yéen tey ci seen information politique li nga xam ne moo fi jot a xew ruus tàmbali semaine beeg léegi ñu ngi koy ci Farba mi nga xam ne démb waa nag lañu dem këram fekk ko fa waaye mu amoon benn xëccante jàppal fii bàyyil fii ci lan vingt 25 milliards yi nga xam ne moom da koo moom ci ay moomeelam ak ci ay kër yi mu am ak ci 7500 mètres carrés la yi mu am ñu war a xam fan la ko jëlee moom géwélu Macky Sall bi waaye it cent millions yi nga xam ne dañu ko fekk en liquidité këram ak fi réew mi toll loolu it dinañ ci am néeges ndiku di xaar nan la wànneen di mujj ki bëtam gannaaw bu ñu jógee ci loolu gis nañu Ousmane Sonko fi mu ne nii lii waa Pastef naan plan A ba Z Ousmane Sonko la dinañu leer suba ndax suba Euh, tribunal bu Ziguinchor war nañoo génne ab bataaxal boo xamante ne ni dina valider waaw am déet candidature Ousmane Sonko pour présidentielle 2024 ah loolu nag euh, moo ñu fi fekk dinañu xaar hmm? Sénégal gépp dinañu xaar waaye waa Pastef jàpp nañ ne bu war di am du waa tribunal Ziguinchor moo leen war waaye loolu it ñu ngi xaar fan la wànnante ki di wujje ki bëtëb waaye bu ñu jógee ci loolu gis nañu Mame Mbaye moom it lancé waan na procès bi nga xamante ne nii bor bi nga xam ne usman Ousmane ko daf ko war a fay gannaaw bi ñu ko accusé ne daf ko def diffamation daf ko waxal lu amut mu waroon am amande deux 200 millions te ba léegi fayu ko waaw te te source bi jeexagul te ba léegi fayu ko mu war koo fay lancé waat na loolu waaye dem na it ci ay banque yi nga xam ne jàpp na ne Ousmane ko bàyyi na fa xaalis pour ñu dajale fay ko ay kopparam loolu it euh, li ma leen di wax rek nee naa leen ak Click Dakar di yëpp fii lay leere waaye bu ci loolu Aly Ngouille Ndiaye lancé na programme élection 2024 moi moom de moom dellu ko ginnaaw ca la mu waxoon àndut amaro Ba du ko teree dem présidentielle dellu ci ginnaaw démb gis nañ ne lancé na programme am élection wu 2024 waaye wax na fa it ay wax ak ay dige ak ay kàddu waaye ñun ñoo ñoo ngi xaar ndax ko fi ne ni parrainage lañ toll lépp mën naa ne waaye waa mouvement F24 ñoom it euh, ñëwaat nañ bii yoon ngir sàq seen ak ak yelleef ndax bii mooy huitième demande d'autorisation de marche bu ñuy def ñu leen koy refuser par euh, le préfet de Dakar moo leen koy refuser te boobaak léegi ñu ngi toog di négandiku gannaaw loolu gis nañ euh, Barthélémy Diaz maire de Mermoz et Dakar maire de Dakar autant pour moi ñëw na di naqarlu ak a méttitlu explosion gaz bi amoon Derklé démb bilan bi fees dell ñu ne am nañ démb 8 morts waaye moom nee porte day porter waa Total énergie ndax ñoom ñi nga xam ne ñoo defar gaz yi ba explosion yooyu am donc loolu it dinañ leen ci dellu si waatal dinañ si dellu waatal bu baax a baax a baax ginnaaw bu ñu jógee ci loolu ne naa leen euh, migrant yi nga xamante ne nii ñoom ñoo jaaroon ci géej gi Barça wala Barsaq waaye dinañ ñibbi si Sénégal nag ndax fi mu ne nii taxaw nañ tem ci pour ñu ñibbisi fii ci digg réew mi ñu ngi leen di waaj a rapatrier dëgg la am du dëgg yoon la ak du yoon ba ñi nga xam ne ñoo nekk Espagne ñi ngi marché naan du yoon waaye fii ñu leen war a delloosi njàqare ak tiis ak jaaxle moo taxoon ñu dem ndax duñu leen fa bàyyi gënal ci ñoom ginnaaw buñ jóge ci loolu dañuy jàll mbuur fee ca Madinatu Salaam taset ñoo ngi gis ne gannaaw bi ki naan Assane Ndiaye du euh, joxoñee baaraamu tuuma le maire Maguette seen ci tiitre foncier yi nga xam ne daf koo luubal daf koo sàcc ci limu wax ah jàll nañ gis nañ nag population bu Madinatu Salaam Kër Samba di lan ndox mu fa ñàkk am amuñu eau potable waaye gi ñu seetloo ci loolu dañoo gis ne ONAS SONES dafa ñëw di samp forage boo xamante ne nii ngir jox ndox waa Mbour ñoom it ñu ngi ne balaa ngaa dan lañ koy waxee ci olof sax balaa nga balaa ngay jaax di laay balaa ngay jaay laax da ngay jaay lekk ah autant pour balaa ngay jaay laax dangay jaay di lekk ba noppi ndax looloo waral dëkk boo xam ne bu toll noonu superficie bu toll noonu ak nit ñu toll noonu ne fa ñoo am ndox mu ñu naan boobaak léegi ñoom plus de 30 ans ci teen la ñuy root teen la ñuy naan ak fi réew mi toll 2023 ba léegi nii eau potable amu fa ñu jóge bëgg a jël ci seeni ndox di ko jox waa Mbour ndax loolu yoon la am du yoon dinañ ko laajte ndax nag bu leen fàtte ne Mbour Madina Salaam ba fa nekk carrefour boo xam ne entre Malicounda Mbour Saly moom moo nekk ci digg Carrefour bi waaye it euh, ñoom waa Madinatu Salaam loolu mooy seen njàngat loolu mooy seen naqar ak seen tiis waaye nee nañ nag forage ba du yegg dina yegg am du yegg monsieur le maire dina leen woo am du leen woo Click Dakar du leen ci bàyyil dara di leen jox rendez-vous demain bye bye. di daani sama waay la jaara busub wala mañ sa bi